li ñuy wax mooy ñun mairie Wakaam nga xam ne mbir mi fii ci territoire communal ci territoire communal Wakaam la tey may wax ci turu maire Wakaam El Hadj Abdoul Aziz Gueye démb bi ñu jógee kër ga waxtaan naa moom lu yàgg fii ñi fi tudda ñëpp ñi ngeen si tudda ñëpp ne ñoo leen ñëw di leen représenté te yéen joxuloo leen mandat pour ñu représenté pour wax seen tur bu leen yaboo ngeen dalal seen xel du ngeen li muy wax am na njëriñ mais bu dee yéen yebalu leen pour ñu wax seen tur fépp fu ñu dem di wax du am sens fépp fu ñu dem di wax du am sens que mu doon seen tur yéen doon turu famille yi fi revendiqué ñoom itam seen dossier bi ñu ngi koy suivre li mu ko war a suivre mairie Wakaam nelawul ci dossier bi parce que dossier bi ñu bari ñu ngi fii toog moo leen mag ndax man ba ma ñibbisee quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit nekk ci cabinet Mamadou Diop sénateur maire de Dakar ci jamono yooyu déjà problème bi mu ngi commencé am donc du tey maire Bathily bi mu ñëwee itam fekk na fi problème bi am na jéego yum ci dox neex na leen neexu leen neex nañu ñun maire yi tey neexu neex neex ñu neexuñu lépp loo ci gis rek état continuité la mais ñun dañ ci am position de principe majeur essentiel ñun itam suñu principe boobu dañ ko weer ci légalité républicaine parce que lépp mun munti wax ci turu état la ñuy wax mairie démembrement état la cëru état la benn pàcc la ci état ñun réunion bi ngeen di wax bi ngeen ñëwee kër ga démb wax ko ñun yëguñu ko defe naa préfecture ngeen demoon euh, na ngeen xam ne ña ngeen ko seqal tooguñu mais mënuñu def dara lu état validé maanaam validé état mooy validation état mooy mairie ànd ci te ñun maire yëguñu ko donc donc boobu ñu sommation yooyu leen ñu leen jox démb da ngeen guddee dem mais depuis ci suba ñu ngi jéem a xool nuñ koy régler avec le préfet li ngeen wax fii nag interpeller président de la république man ne damay dalal seen xel dalal seen xel nag du ñëw ma leen di fen parce que man du ma ko def du ma ko politiquer bu ñu fi jógee ngeen laajte kuy Babacar Sarr ci politique defe naa bu ma doon def yenn yi def naa transmis naa bu yàgg mais ba fi may wax ak yéen je suis resté socialiste donc te lu ne gis naa ko lu ne wan nañ ma ko ma leen di xamal ne xanaa ñun lu ñu jaay doole te gëm naa ne président bi fi nekk nii tey du yokk xar mi kawar gëm naa loolu joxe ngeen fi nag une idée majeure cité euh, de de de de la mécanique du loolu ngeen fi wax léegi mais loolu da ngeen koy da ngeen di ut ñu leen koy bindal ci kayit ngeen proposé ko parce que fii itam état daf fi am projet boo leen taxawee ne état bu fi amee projet doo leen fi jógee xaj na damay ne si stratégie bi la rek mais man mi wax ak yéen am naa Tivaouane Peulh cinq hectares tali bi dagg bi bi dem apix sama tool la dagg en deux parties état damay ñëw taxawaayu maire bi foog dinaa ci ñëw mais dañuy expliquer jeunesse bi parce que ñii ñii ñu ngi soog a jël contact ak maire yi taxawaayu maire yi wax naa ko junj naa ko léegi rapidement nee naa leen maire bi démembrement état la position de principe ñun mooy fii Wakaam lépp li nga xam ne dañ koy def ci intérêt askan wi la ñuy jéem a pousse état mu fekke suñu ci. intérêt askan nag na fekk mu ànd ak intérêt général su gars yi li ñu bëgg tey bu leen yeboo ñu xam ne day jafe mais état prévoir na jafe-jafe bi parce que province étude terminal terminus terre bi yëpp xam ngeen ne fii la mais mairie bi lim ci mun a def ànd ci ak état muy gouvernement dinañ ko def moo tax bi ñu yegee ne préfet dafa ñu démb ak ñoo xam ne amuñu mandat dûment ab sont pas dûment habilités pour wax ci turu ñii ak ci turu famille yi fi am ak turu maire bi ñun ñu ngi jéem a def ay jéego pour entrer en contact avec le préfet loolu kay principe boobu laa la ne moo nekk bu leeree sa bopp baax na. li waraloon sunu affaire yi tey nag mooy euh, dañ ñoo bëgg a neewal doole dañ ñuy neewal doole itam ñu nag ñoo ma yem ci réew mi ñu woote woon tey. benn briefing boo xamante ne dañuy woo alerter le président de la république mi nga xamante ne moo ñu njaboote ñun ñëpp ñu nekk ci benn terrain boo xamante ne occupé nañ ko pendant vingt cinq an di fi liggéey ñi fiy liggéey népp ay nekk ay jeunesse transféré wuñu dem ci gaal demuñu fen sàccuñu yàquñu depuis événement du 21 2021 27 juillet 2021 ñoo ngi fii y a la gendarmerie devant toutes les portes moo suñoo gis kenn koo xamante ne génn na fi di sànni xeer kon yaakaar naa ne état le président de la république man moom laay waxal du ma wax ak kenn ndax moom moo ñu jaboote ñun ñëpp di bàyyi ñëpp war wutal nit ñi xëy wutalu leen ko ñun ñu wutal suñu bopp xëy am fu ñuy xëy warul jël ay nit ñoo xamante ne ay amateur promobilier lañ ñu bëgg leen jox piste bi génne ñu fi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba maanaam dañoo xëy ci télé yi itam yaakaar naa ne bu fekkente ne Bamba Yad moom mooy ki nga xamante ne fu ouvrier nekk Sénégal moo la ko fa jëlee na xam ne fii moom mu ngi doog a teeral bu njëkkee woon fii du dem fenn ndax lépp loo xamante ne mu ngi koy def pour jëlee ñu fi dinañ def loo xamante ne duñu fi jógee. kon fi mu toll nii lan mooy sunu combat wax ak président bi nga xamante ne moom décret bi ñu war a jëlee fii moo ko war a signé mu xool bu baax fii bomb la te bopp bomb bi président Macky Sall moo ko fi mën a fay bu ci sotee essence mu tàkk. na xam ne responsabilité yëpp moom la. joxuñ ñu sommation dañoo xëy wax ci télé ak rajo yi ne dañ fiy jógee ñun am nañ beaucoup de stratégie li ñuy wax mooy wax ak président de la république ndax moom lañ mën a waxal ñun soxlawuñu kenn recevoir ñu ku dul moom ñu wax ko ñun lan la ñu soxla mu xool mille jeunes fii c'est triste xale yu toll nii nga bëgg leen a saccager dans deux ou trois jours famille yi ne fii Wakaam Sacré-Cœur ñëpp fii la ñuy dundee ndax fi leen jaayee loolu dafa nekk stratégie yoo xamante ne moom bu dawul yaramam pour mu bañ ñu fee jëlee ñun dinañ def loo xamante ne suñu bakkan mën na fee des te ñu bàyyi fi nit ñi. maa ngeen si di siyaar yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen gërëm yéen journaliste yi sama baat dafa dee dem démb nelaw ma semaine yëpp nelawuñ bu ñu déggee affaire bi ñun ay sénégalais lañ ouvrier yi si dëkk bi lañ bokk. état Sénégal dafa seetaan ay doomu réew dafa seetaan ouvrier yi état Sénégal kuy fen kuy fo kuy fecc moom la favoriser te ouvrier yi ay liggéeykat lañ mbër yi ay fokkat lañ dañ leen defar làmb dafa leen esat footballeur sans footballeur yoo romb deux ñooy réussir man mi ancien footballeur la deux ñooy réussir quatre-vingt-dix yëpp dañuy ñëw jàngi métier daara kuñ fa dàq ku jàng daara da nga ñëw jàng ci métier école kuñ ñu dàq école si métier bi la indi mbër mbër bu raté si métier bi nga jëm métier bi di forme ay booy trois ans quatre ans ñoo yor charia yor seen papa suñu jarbaat suñu rakk yu bëri dem nañ dee si gaal gi parce que dañoo manque dañoo ñàkk yaakaar suñu réew fii lañ dese juróom-ñaari personne benn paa bi man dem préfet dama toogoon ak préfet lundi kon man war naa mën a wax benn paa bi fii la nekkoon dafa jaay atelier am ñu dem nekk chef de village kenn ki ki doon wax si RFM amu fi atelier keneen ki jaay na atelier am luy na keneen ki ubbi tëj na atelier am génne xale yi fa nekkoon doon daan seen doole yéen may dégg juróom-ñaari paa la bëgg sacrifier 4000 personnes loolu duñ ko nangu. may leen ma may leen ma état bi na ñëw waxtaan ak ñun na ñëw waxtaan ak ñun bañu ñu fi jóge de mais ci ay conditions yu leer may ma may ma may ma ay conditions yu leer. dañu am njiit bu fi nekk ñu jiital ko muy Tanor Tanor Fall ñu topp si ginnaawam duñ seetaan kenn di ko ndéewal doole man Omar Dieng laa tudd dawuma daayuma keroog moo waxee wax na ak préfet wax ak euh, colonel ma Descos Buri ma Buri Ndiaye je crois ak ñi fa nekkoon juróom-ñaari paa la juróom-ñaar kenn ki jaay na atelier mi ngi dawal mi ngi jënd oto di daw war gaynde ñoo ñoo ñëw ni ouvrier ñoo leen yónni ouvrier yónni wuñ leen ouvrier bu ñu yónni ñun ñii la ñuy yónni ñun ñii ñoom Tanor la ñuy yónni ouvrier yónnoon juróom-ñaari paa la bëgg a sacrifier mille personnes mille personnes yooyu ay cinq mille personnes ñu ngi seen ginnaaw paa yooyu ne état ne état jël woo leen enquête leen enquête ñu kon paa yooyu heure bi ñu ngi si ndungi sin dañoo jaay seen place jaay jaay nangu nangu ay ay ay ay xale seen ay deux cent mille seen trois cent mille pour jox leen place te joxuñu leen place xam nga non xaw ma ñëpp seen tur mais pas yooyu ne état jóg ne état jóg dal ci kaw paa yi man fekk naa leen bi mu leen fa fekkee ñu toog dem leen taxaw ñu leen yéen sept personnes yi toog nii devant préfet yéen yéen a bëgg sacrifier population Sénégal presque nangu wuñu loolu de paa yooyu préfet ndax xoolaat paa yooyu fu ñëw ay naafeq lañ il paraît dañ leen dig fii place pour bu ñu jógee fii ñoom ñu jox leen fi ay terrain loolu du am ba du am ne ay sénégalais lañ duñ ay burkinabé ay doomu dëkk bi lañ di investir di liggéey ci dëkk bi nañu ñu bàyyi fii bu ñu mu ñu bàyyi ñu jox ñu foo xam ne dañuy jox loo xam jox ko moom ak suñu bopp ëllëg jox suñu papier bopp ëllëg de dommage ñu jox ñu xaalis boo xam ne ëllëg duñu mën jógee ñëmbante ne mais place bi mënuñu fi jógee dans 15 dañ fay jëlee keroog man dama bañ xam nga keroog lañ ma si nekkal bi ma génnee soo béyee dañ lay yóbbu si man ne je suis prêt pour défendre sama population pour dugg si kasa pour dee maa ngi ne je pare xam nga xam nga lan laay bañ jaay drogue agressé rey nit mais défendre sama population je suis prêt pour joxe sama bakkan sama population rek am si lu baax nag ci kaw ci kanam allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa